benn équipe bi la de mooy sa manager de leer laa la wax man xam naa dara. mais mais mooy sama manager. même Mbaye Fall moom moom lay du tigre lay du tigre moo xam fu mu koy yóbbu nag. dégg naa si mooy mooy émission bu nit ñi di. mais dégg non non non mais dégg naa ko jël ngeen koo foqal ngeen ko. ma ne foo yaa ko fi indi de dégg naa fexe ngeen. yaa ko fi indi de yaa ko fi indi yaa ko fi indi yow du ñu du lay tig kese nga fi indi ñu ngi fi indi bari na de. ah bon élément jàmbur yi ngay jël di yóbbu rek foo jëm yóbbaale waaw. <laughs> waaw père dafa am élément. yow laa fi jëkk indi di. waaw waaw. yow maa lay indi fii ci jamono jooju waaw ma jógee tamit yaa ma fa maa la fa yóbbuwoon jël ba nga fa jógee si sa coobare bopp it maa la fi indi bañu ko de waaw ma ko de ci sama coobare bopp yow xam nga lool sax <laughs> yow xam nga lool sax atte bi yaa ko doon atte de yow xam nga lool sax moo tax ma ne ci sa coobare bopp ma ah, jéem a arrangé mais père mais père jusqu'à présent man li may laajte wala ñeneen di laajte peut-être ba xaw nga cee brosser tuuti mooy euh, nga toog presque li nga wax cinq ans ñëwoo ci ak force lan moo la motiver ba nga ba nga duggaat ci làmb war na mais parce que li ma gën a motivé foofu na dama bëgg ngeen teelu ci dama toog ba ci yàgg ma gis senegal ñun ñëpp ñu war a nekk benn war a yéenante jàmm war di waxante jàmm ma gis ni certaines télévisions dans certains plateaux dans certains sites mhm. nekk wuñ ci lu dul bëgg a taal réew mi mm. di yàq der di xaste di respecté tunu magistrature respecté tunu exécutif respecté wuñu benn pouvoir ca pouvoir yàlla ko fi teg su fi yàlla teg mu wóor nii pour jiite réew la euh, pouvoir judiciaire bi nekk fi pour àtte ñu mën leen a jox respect au moins ma gis ni ay yaa de des donneurs de leçons yoo xam ne dañuy toog ci plateau seen wax yëpp mooy taal réew mi te ñoom ñiy bëgg a taal réew mi ñëpp kenn amu ci kër goo taal bëgg a influencer ay doomu jaamur bëgg a influencer la jeunesse sénégalaise là te kenn mënu leen a influencer ma ni bon mais ces plateaux là pour quelle raison ñu nar leen a fi rek bi ne bon man damay dellu sama làmb ci comme Sénégal xam naa bëgg nañu làmb la preuve bi ma dellu si ba gis nga presse bi yëpp parler tout ñëpp ñu ngi waat ci làmb ji site yëpp commencé waat bëgg a suqali ko ci làmb ji parce que ñu bëri ci làmb ji la ñuy dund. ak risques dama juddu pour nekk di liggéey pour sama réew. mais suñu sous-entendre non non pardon ma expliquer. loolu lépp ba mu amee man ma jë am option yi damay tante pour dellu soir ci làmb ji investir quelques plateaux mënu ma investir pla mënu ma investir plateau ma investir quelques plateaux au moins sénégalais yi. mais nag yow dootoo demati benn plateau de parfois nga am plateau yooyu dem ak yooyu dul dem de. waaw waaw waaw am na plateau yoo xam ne bëggatuma cee toog sax parce que man ay plateau. léegi politicien nga de non xam nga tax am na ay. promoteur plus politicien. non xam nga tax non non non non pardon xam nga am na tax plateau yoo xam ne bëggatuma ci dem parce que man mënu ma considérer ñu jël un plateau teg ci benn kuy saaga euh, métier mooy saaga ndey saaga chef d'état saaga yu kenn xamul wala un ancien. ah euh, kii saaga du citoyen. même si citoyen mais nit doo jël. kuy saaga wala euh, koo xam ne rayoon na fi benn président conseil constitutionnel wala ray def nga bëgg jël ko bëgg ko def star. <laughs> yow rey nga xam nga lan nga rey. ñooñu ñooñu la xam nga lan nga rey tudd l'institution. yow yow xam nga lan nga rey liggéeyu ndaw yoo xamante ne ay làmb yow. làmb ji nga faat yow li yow waroo too sax wax looloo tax ma dellu pour au moins. dellu ci xel ñu réanimer la ah. ñu <laughs> ñu kiyaat addina bi. ñu xam ne ñi fi nekk. réanimation bëgg réew mi. mais ak ñi nu bëgg a def star du nu star. coow li nga bëgg a fay moo tax nga bëgg a. dugg ci daan waaw fayaale coow li et puis coow li coow coow li coow li xam nga coow yomb na. star nga xam nga gis nañ fi ba tey ñu ñu menacé fi ay nit ñi su amee tey réew mi tàkk kañ la réew mi tàkk. mais per réew mi kenn ko mën a taal. Eh, réew mi mais kii li muy wax lan lay wax kan lay wax. c'est man per su ma déggee sa yoon dafay mel ni que ni Sonko ngay wax kay. non non ah, waxuma fa la ñuy dugg de. ba tey dañ ci dugg sax mën noo taal réew mi. Mm-hmm. le président ah, attends dafa am loo xam ne nag sëriñ su baax yi fi nekk de xalif généraux Macky Sall dafa ñëw ci jamonoy sëñ Saliou Mbacké yàlla na yàlla leeral fa mu nekk kooku sëñ Saliou ko ñaanal ni ko sa nguur gi da nga soppi réew mi ñaanu sëriñ Saliou nag du neen ñaanu xalif euh, général sëriñ Mansour si du neen ñooñu ñëpp danoo ñaanal Macky Sall <laughs> ay bandeeki ay yu kenn xamul mënul ak apporter ak wax mënu la mënu la taal réew mi mën nañ leen di déglu nag mais mais man non pardon mën nañ leen di déglu pourtant ñooñu parce que ñaanee pour mu bàyyi Khalifa Sall dafa ñi jéem a taal réew mi yëpp kenn amu ci kër goo taal ca mënu ñoo influencé kenn xanaa dañ fàtte ñaan bi de tey dama romb buntu assemblée nationale maa ngi déglu rajo yi maa ngi ci buntu assemblée mu mel ni assemblée bi day tàkk ca xamee ma ki may gis nii te man maa ngi taxaw ci buntu assemblée sama oto ñuy ma dégg reportage bi mu mel ni fii a ngi tàkk soo nekkoon Pikine da ngay def ne assemblée ngi tàkk. kii Gaston la wala du Gaston. Gaston Mbengue la. mais père père man su ma déggee sa wax nii dafa mel ni que ni. Euh, Gaston yaa ngi ci làmb ji ba mu neex la nga génn ci dem côté assemblée toog waaw te yow wax man kii bu ma dafa ni que yow euh, euh, politique bi nga ni état moo la loo defee làmb a fay. non buy ma dafa fayoon de. non xam nga état moo tëgg làmb Sénégal kañaan xol yu bon yi dañ fee bari ba nga xam kañaan <laughs> ba nga xam ne su nit di am lu baax sax ñu féetale ko ko jox. man su même su ma joxoon même laa wax de dama ko mérité. te man état joxuma samay pexe ma jox. nit day wuti pexe. kii. bi su góore mi jëkku fee def événementiel. jëkku fee nekk dégg nga maam kuy ànd ak musicien ki ay événement ak yooyu mais fulaam ak faydam ak ay pexem moo tax muy def li muy def. nit day am pexe. mais bàyyi leen. fu nit di defee hmm? loo xam ni. dafa am tri rek ñu wut ku ko ko jox mi ngi may tooñ de. ñu wut ku ko ko jox. mi ngi may tooñ de di wut fu mu jëlee. te man aw ma benn pexe. yow yaa man aw ma dara yaa gën a rëy pexe. mais mi may tooñ sa moromu jigéen yaa ci ëpp pexe. pexe rek am. wax mi ngi mi bari pexe. perte moo ba a ñaaw. loolu ñaaw pexe bu ma am yaa ci ginnaaw yow bokk yow may sa papa. yow soo damaa da ngaa war soo amul pexe sax ñu laaj la ko may sa papa. il faut nga am pexe. parce que parce que parce que père bu ñu bu déggee li nga wax ni yëpp maanaam teg làmb bi pour yenn coow yi fay pour yenn yi nga xam ne soulèvement yi am euh, bu ko nit ñi déggee man ñi ko ñeneen ñi am idée mën nañu ne kon euh, Gaston li mu nekk ci nguur gi nguur gi moo koy jàppale. pour mu mën a fay coow non man nekkuma ci nguur. non ànd ak ànd ak mouvement mouvement nekk damaa ànd ak. ki nga xam ne moom la fi yàlla teg ki yàlla yàlla man damaa nangu ndogalu yàlla. Mhm. damaa naan waaw ndogalu yàlla ba ngay jël di créer ay ñoo xamante neen rek la fi fekk ñun ñëpp fekku leen fi ñoo ñana ñun nguur Macky Sall kat Serigne Sall fekk te nga bañ a a xaar rek mooy circulé mais yooyu ngay wax nii yëpp nag defal daa nga may mais man li ma gëm laay ñu gëm si léegi foo xamante ne hmm. père faaw ñu taxaw ci parce que tamit yow yaa yow yow yow yow yaa bàyyi sa ànd yow yaa bàyyi promoteur bi nga nekk hmm. dem ci politique bi sa yoon nekku fa non man man fépp laa nekk Euh, ok gas man fépp laa nekk man may sénégalais. di assumer li may def. kon gas passe partout. voilà léegi de ma expliqué la. Hmm. yow xam nga da nga dugg ci si nga xam ne nii mooy mooy politique bi. léegi yow ci kaawu Ousmane Sonko bi la nga ci xalaat parce que tuumaal nañ ko loo xamante ne euh, euh, yow da ngaa mel ni ku jël parti pris yow. non jëluma parti pris dama am doom ju <laughs> am ay.